والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خدمه وأمته لي موي تيرب سن الحاج مباكي بي تدو غرب اكتوبا خادم الخديم موكو دون ديما داجالي يالنا كو بروامم نانغ سي باركيم فاو خاد له الله مختار له سن بوكم تاوي سالي هو غاديغا moo koy jottali ngir bëgg jullit yépp yi gën cee mën a àgg ca njariñ la ñu fàttali bala ñoo dugg ci leeral téere bi am na baat yu suñ jëfandikoo te defoon ci ak yeete akuk leeral muy baatu wér na wala wër na wala war na wala siiw na wala lii mooy gàttal gi yooyu ñu fàttaliwaat ko bi ci njëkk mooy wér na saa su nee wér na lool ginnaaw am nettali mooy loo xam ni doomi sëriñ Tuuba xaadaloo la Muxtaar Lo moo ko wax wala ka ko wax fekk fi sëriñ bi loolu mooy su ma nee na boole ci lool gi saa su ma nee wér na xam ni boolewuma ci lool mooy loo xam ni ka ko wax fekku fi sëriñ bi waaye ku wér la koo xam ni daa jële ci koo xam ni daa jële ci koo xam ni sëriñ bi moo ko wax saa su ma siiw na mooy loo xam ni ñu wér ñoo ko wax ñoo xam ni danañ sàmm seen diine luñ man waaye sax dégguñ ci koo xam ni daa dégg ci sëriñ bi saa su ma nee wër na mooy lu wër lu fu bari ñu koy wax ña koy nettali mën nañoo wér mën nañoo bañ a wér yu mel noonu nag léeg-léeg am yeneen yu ko gën a mën a wéral waaye ku gis loo xaw a safaanoog moom te wér mën nga ko wàcc saa su ma nee loolu mooy gàttal gi mooy dagg naa lu bari ci lu dul waxe sëriñ bi ci nettali bi wala mu bari nuñ koy nettalee ma jël nettali ba ca gën a gàtt wallahu taala alam mooy yi nga xamee ni yeete la yoo xam ni téere yu njëkk yee amoon na ca yi nag noonu lañ ko ciy leerale ngir ku ku ko déggoon te jot miin waxin yooyu mu jàpp ni lool mooy wuuteeg wér na lool wala wér na wala wër na wala siiw na wala loolu mooy gàttal yi ba tey it léeg téere bi am ñu ci gis loo xam ni danga ko laajaat ngir bëgg ci ak leeral wala ñu am loo xam ni da leen ci jaaxal ban bëgg ci ay gëstu loolu képp koo xam ne da ngaa bëgg a jokkoog ba xam ci lu leer man ngaa jokkoog sëñ malik mi nga xam ni moom la sëñ alhaji mbàkke teg yooyu ci loxoom ma nga nekk ci këram gee ci yoonu daru muxti wa waaye lii mooy numéro téléphone insha allahu képp ku jokkoog moom rek da nga ko mën a jot benn bi mooy 77 976 20 97 bi nga xamee ni nag moom tigo la mooy 76 695 06 45 numéro yi daal képp ku ci jokkoo ak sëñ Malick mi nga xamee ni moo yor wàllu téere yooyu sëñ ëllëg yooyu maanaam bu dee loo ci leerlu ci yooyu wala loo xam ni da nga bëgg mu àgg ci sëñ bi ak leeral gan ci am allah leer téere yi nag doon yu tasaare yoo xam ni jullit yi ñu ngi ciy ñi ngi ñaanal sëñ alxaaji Mbàkke mi nga xamee ni moom la ko yàlla jaaree ci loxoom sëriñ Tuubaa def ko muy ab liggéeyam boo xam ni moom la ci liggéeyal eh, eh, sëñ bi waxe woon ci nuur dañ di ko ñaan yaa jaailan xatt ya fawqa warni wasanna xayri yaa xasimal man ni yàlla na ko sëriñ Tuubaa defale noonu moom it ci am mbindam yàlla nañ suñu borom boole ñu ñëpp ñu koy digloog ñu koy jàngaleek ñi koy jàng ñi koy tisaareeg suñu borom may ñu taalibe di ñaanal it sunu mbokk mi nga xamee ni day sonn jamono yu nekk ci tasaare gi muy sëñ mustapha Thiam ci njaareem ak ñeneen ñu mel ni ki moom yàlla na sunu borom defal ak taalibe guñ nangu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين sayidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa mayamin wa man tabihum bi ihsaani ila yawmi diin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu del siwaat ci waxtaan yi Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo ni nga ko baaxoo defee tey nag ñu ngi leen di andil téere suñ alxaaji Mbàkke ibnu sëñ Moustapha Hafsa def sëñ bu mag bi ñu koy wax garabuk Tuubaa muy xaajub ñaareel bi téere bi nag fii la tàmbalee aoudu billahi min ashaytaani rajim wa inni uhizuha bika wa zurriyataha min ashaytaani rajim rab aoudu bika min hamazati shayatin wa aoudu bika rabbi an yahdurun bismillahi arrahmani rahim allahuma bihaqi wajillahi taala alkarim صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبغ الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار الحسيم صلاة وسلام وبركة تأخذ بها للشيخ الخديم القائل وظلالي إلى جنات باخ توسعت وكلي وما سان حام مشذذ ما اخترت ورددت له في الحال والمآل عونك يا معين وبك نستعين ñëw ci nettali bu njëkk bi muy sëriñ Masamba Kandi radiallahu taala anhu mas naa wax ab taalubeem bi ñuy wax Ahmadu ñoom ni ko Basiiru mii nañu ko yóbbu ca sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar ko ba mu ko fobee ba ci sëriñ bi wàcce ni ko sëriñ Masamba Kandi nee na ñu dolli ko ñaan ndax dañu koy bëgg a yóbbu ca nijaayam sëriñ Moor Penda mu jàng alxuraan sëriñ bi niko bo ngeen tollee ne la sama xel dem ci sire bi ko sëriñ bi di ñaanal bi mu tegee loxom ci boppam daa sedd lool ba yaramum yépp di ko yëg ñaan ga nangu lool ba nga xam ni bi mu mokkalee alxuraan téere ba mu doon jànge kayit wu ci ne xam na fa wa tàmbulee ak fa mu yem siiw na loolu mooy barkeb sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo kii nag day doomi sëriñ sire loo radde law taala anu moo tax sëriñ bi di wax loolu fi ne léeg-léeg nga gis lu yéeme ci waay ba defe ni ci moom la te ñaanu mag rekk la moo tax war nañuy góor-góorlu di sàkkul ñaan sunu njaboot ci képp ku ñu yaakaar barke ci moom loolu dana leen dimbale lool bu ñu nekkee mag te mel na ni ñaanu boroom barke goneel la gën a mën a dal ndax amul benn bàkkaar buy dox diggam ak ñaan gi wala alam sëriñ tuuba xaada la woo laahu maxtaar la woo nee na yoon wuma ma ñëw jamono lakkum laa fi am defar jamono dellu lakkum mooy juróom ñeen fukki at xëy na la jublu waaye wii yoon lahum laa fi am lahum mooy juróom ñaar at ak juróom xëy na la jublu siiw na loolu dañuy xamal ni bi bari na lool lu mu daan dikk jamono ba dañu xamal day wéy di dikkaat jamono ilaa yawmil xiyaama leeral na loolu itam ci ay mbindam yu bari waaye lim boobu mu wax moo xam la mu ci namm bari lool nag ak soppiku moo tax kenn wërta gis jenn wax ci moom ba tax nga doyadil jeneen fi mu ne bu ñuy jàng alxuraan danañu gis sàngara fu mu koy limaale ci xéewal yi gisaat fu mu koy limaale ci xaraam yi wala alam mas nanoo laaj sëriñ Tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo na xasida yi mën naa tege ci kaw alxuraan mu ni leen doom xanaa fu ndeja nekk mën naa nekk ca gan ba wër ko sëriñ bi ni xasida yi alxuraan moo ko jur kon mën naa tege ci kawam siiw na war nañoo xam ne alxuraan am mbóot la waaye lii nekk ci kayit yi ay xarab la sëriñ bi itam wax na ni li muy wax lépp ca lawhul mahfuus la koy toxale ni nga xamee ne alxuraan foofee la jóge kon dëgg-dëgg alxuraan sax mooy mbindum sëriñ bi yaquudu rabbul alamin liya bi xayril alamin sirral kitaabi bil amin wa lii bil afdali ba tey man alhaaji xaarimul xadim maa ngi laaj yonente alayhim salaatu wasalaam ak seeni ndey kan moo gën walaw alam Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo daana wax dikk leen ma wax leen ko ci wolof ci wolof lañu koy xame siiw na wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmihi li yubayyina lahum Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo sunu boroom subhaanahu wa da koo andi ngir mu dimbale xeet wépp waaye nag ak ay nitam looloo tax waxtaan yi mu daan def nga xam ni ci la njariñ yi nekk ci wolof la ko daan wax walaaw alam ci jamonoy sëñ Tuuba mas nañoo andil sëriñ Tuuba xaada la wala maxtaaloo addiye ju bari mu jox ko sëriñ Mandumbe ni ko suulal ma ko mu sool ko fii bërëb bi nekk bi sëriñ Tuuba xaada la wala maxtaara lahoo jullee tisbaar ba salmal ni ko Ahmadu xanaa lama la suuloo woon suuloo ko déggoo yuuxoo mi noonu mu ni ko ñu ànd dikk ba ko suuloon te mooy fi jumaa ji nekk sëriñ bi ne ko sullil te dem ba ca gannaaw xàllu jolof wa nga suul ko fa te dellu si fekk ma fii bi mu ñëwee sëriñ bi ne ko pax mii suulaat ko mu suul ko mu ne ko xanaa xamoo ni asamaan sépp ñaari bunt la benn baa ngi tiim kaaba ga benn baa ngi tiim fii sunu borom subhaanahu wa taala bu lottoon bay wut dencukaay fii nga taxaw koy def yàlla nag deful kuy lot bay wut dencukaay bu muy fàgganikoo ngir ëllëg lii séeréer loolu mooy fi la wàcc ahlu badrin rat fi ahlu badrin te di leen firandi rat mooy takk firandi mooy maam tekki te du leen firandi mukk te taxa ñuy siraat ahmadu lu ngeen bëgg di ko wuti ndarake ndakaaru diir bu gàtt dangeen ngeen romanteeg moom fii te du ngeen ko faale atteb jamono jëpp itam dikk na fi fa bi di fenke ak fa muy sowe dana mujj lu ñu fi atte te dikkuñu fii atte boobee du wéy so so mooy muuru ak jant bu muuru mooy jant bu so liggéey bi ma fiy liggéey lu itam nit dana bàyyi ko màkka ak madina aleem réew yi ngir xool ci liggéey bi siiw na nettali bi bokk na ci lu muy jàngal am murit Sëriñ Tuubaa xaadaloo loo maxtaarloo xam na li lii ñëw lépp xaalis yi am na ci yoo xam ni wareesu leen di jëfandikoo keneen itam wareesu ko bàyyi mu koy jëfandikoo nga xam ni kon suur rekk moo ci sës tuubaa itam am na tàmbalikaay waaye amul yemukaay boo gisee fi mu ne loolu mu tudd ci ndar ak ndakaaru fi lépp agsi na ba man mii di bind maa ngi dégg fii tuubaa ñu jóge ndar ak ndakaaru di fi ay yëf ci bis bu set bokk na ci li seetlu itam mépp meññit mu ñor ñoo koy njëkk a mus dëkk ba mu ñore te fi lay gën a yombe itam te loolu mooy man li ma fekke ci at yi may bind lii la ca kanam nag yàlla xam ba tey ñaari bunt yooyu yii mu wax am na benn nettali boo xam ni bindoon naa ko mu nuroog bii lool waaye boobee benn bunt la wax sëriñ bi nag leera na ci ay mbindam luy xamle bu wér ni kax baga dees na ko andi fii Tuubaa xaj na bu loolu amee mooy tax mu nekk benn bunt walaw alam Sëriñ Tuubaa xaada lëxoo law maxtaara lëxoo bi mu sancee dëkk bi xaal la fi njëkk a bay fii armeel yi nekk xaal joojee ba mu ñoree da koo xaaj ñaari xaaj jox góor ña seen wàll ni yéen fas leen ci yéene mucc ci gunge yéefar yu góor yi jëm sawara jox jigéen ña seen wall ni leen fas leen ci yéene mucc ci gunge yéefar yu jigéen yi jëm sawara xaal sëriñ bi fonkoon na ko daanako ko yi itam fi muy jàppe ba mu nekkee njareem ba tey njëkk gi mu njëkk a bàyyi xaal ci dëkk bi ñun murid yi war nañoo xam ni kon baax na lool ci kër wala dëkk bu ñu bëgg a sanc am na ñuy wax ni ñamu àjjana la waaye yaakaar naa lool ni mbooleem meññit yi nekk fii am na foofe ba tey loolu Sëriñ Tuubaa xaadaloo loo maxtaaraloo wax ni fas leen leen yéen ci nangam day tegtal ni lu dagaan boo koy jëfandikoo loo ci fas sunu borom subhanahu wa taala mën na la koo defal rawante naag buli ko kilifa goo yaakaar barkeem xe danañu fàttali ko loolee yonente bi salallahu taala ali bi wa sabi waxoon ni basante lépp loo ko jëfandikoo ngir moom mën na ca dara waaye nag yonente bi salallahu alayhi wa sallam li tax tudd lenn lu dul basante ci ñuy jëfandikoo loolu am na lu muy tegtale moomin maa ngi dégg ñu naan ñamu àjjana la moggura wala alam ginnaaw xaal ja suuna la fi njëkk a bayaat suuna soosee bañu ko bayee dañ ko faa jaag jaag mooy jal ba muy waaj a tawaat mu dóor koo bojjulu ba mu koy bojjulu soxna faati kan ni lawoo taawub sëriñ moomar maammoor jaara ak soxna faati kura ñooñu la jiitaloon ñuy bojj dugub ja Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaloo dani leen fa jaag ba nekkoon la bëgg ñu bojj ko fa te beraat ko fa bañ ko bojjee ber ko foofee mu ni leen natta leen ma ko ñu nattu ko muy ñetti mata ay bërigo lay tollool am na ñu xam lool lim bi ci ay barigo ak àndaar ñetti mata la ak andaar andaar ay kilo la am na ñu ko xam lool Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaloo wax ni ruu yi ma digganteeg sama borom noonu la toll lu tol noonu saa su fi dikkee ñu taxañ asamaan seeg suuf si am na ñu ni saa su fi dekkee dekkee dikkee mooy ñëw dekkee mooy dekki su ko defee mbind mi ma ko sottee moom dekkee la bind li tax may leera loolu daa am sew-sew bu ci nekk bu fekkee dekkee la kon li muy tegtale mooy bu lim boobu matee adduna tukki bu dee dikkee la lim boobu dana mat lu yàgg ba adduna tukki ba yowmal xiyaam taxaw ba lim boobu dekki ñu door a taxañ suuf si ak asamaan wala alam mel na ni nag lim boobu tëkkuwul ci ñuy gis ci zahir rek ndax fu am murit faatoo ci adduna dana ñëw tuubaa ci ni ko sëriñ bi leerale ci yeneen waxtaan ñëw googu nag dana am ci zahir te mooy lii ñuy def di jële ko faatu ndakaar ak ndar di ko andi tuubaa dana am itam ci baatin loolu ñu bari nee nañu malaaka yi alayhimu salaam ñoo koy def am na sax ñuy jàll bay wax ni guddik alxamis gu nekk lay doon ba tey lii sëriñ bi doon digal soxna yii te ñuy ay kilifa danañu xamal ni nit bala nga ko jariñ faw nga liggéeyloo ko ndax coona yi ci lay mën a jariñoo kon ñun murid yi lu jamono soppiku soppiku war nañuy jéem a sonal sunuy njaboot ci loo xam ni dana leen amal njariñ wala alam Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo mas nay defarloo maam Cheikh Ibra attaaya mu koy xellee loxob càmmooñ sëriñ bi ni ko xanaa xamoo ni loxob càmmooñ kenn du ci liggéeye mu ni ko yow cër yépp la war a liggéeyal nettali bi nag yàlla xam waaye man jàpp naa ni sëriñ bi attaaya dawu ko xelli ñu bari am na daal nettali bu ma ci mas a mu koy xelliloo sëriñ Basiiru doomam radiallahu taala kon loolu dana wéral kon ni sëriñ bi daana xelelu attaaya ndax nettali booba moom bu wér la bii nag bu siiw la su ko defee sëriñ bi bari na lu mu daan nattu taalibe ci xeeti jëfin ak waxin xëy na lu mel nii ci loola lay aju wala alam sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaara lawo mas nay julli ji fekk maam Cheikh summiku ba set taxaw ci yoon wi muy jaar bi sëriñ bi yemee ci moom ni ko lii loo ci jublu mu ni ko yow loo xool mu barkeel ma bëgg nga xool sama lépp wër na maam Cheikh radiallahu ay jëfiinam ca jamono yamuy door a ànd ak sëriñ bi yéeme woon na lool loolu moo waraloon ñu bari daan ko coow di ko tudde ab dof yu mel nii itam ak li ñuy wax ci taab bi sëriñ bi amoon te mu muucu ja ngir xër gu ëpp ci sëriñ bi mën naa bokk ca yooya waaye lu man di xew war nañoo xam ni maam Cheikh radiyallahu li mu doon def xam na ko lool walaw alam ñu ñu ci nettali fukk bi Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo mas naa rëdd aw rëdd wax ni ku ko jéggi tàbbi ñëw jéggi ko sëriñ bi laaj ko mu ni ko man yow rekk laa bëgg bëgguma na Sëriñ Tuubaa xaada lahoo maxtaara lahoo ci ak sopp ci la awoon ديني حب الله مع حب الذي عدا قمع أك أحببت رب العالمين أعطيت حب المصطفى وأكتفي بساك ببيد وجه أك وجه الذي يحبني يبيض ضد اقلوب من لم يحبني على وجل موتاح وقتو نيك لولا موي جارين ابتالو بيم تي موم باتاي لي مام شيخ ديفرا ديلا تانو دانيو تكتالني فامو اندك سيرين بي ياغنا لول walaw alam am na ku mos ñëw ci sëriñ tuuba xaadalawoo lawoo maxtaara lawoo jox ko ndox bëgg mu ñaanal soxnaam su tawat sëriñ bi ñaanal ko mu dem dikkaat ni ko faatu na kër ga sax daa mel ni luy bëgg a gént ngir faatu gu bari sëriñ bi ni ko kër googee ak kër gii ak kër yéppay gént siiw na kon ñaan gu nangu du caagée ni mooy nga am la nga doon ñaan déedéet lan mooy ñaan gu nangu ñaan gu nangu mooy nga am la gën ci yow ca waxtu wa mu gëne ci yow gis nga taalibe bii bi muy dikk ci sëriñ Touba xaada lawo law maxtaar lawo daa bëggoon soxnaam si wéraat di dund te fekk na li gën ci moom mooy mu faatu gis naa ci mbind sëriñ bi fu muy xamle ni du sàkku ci boroomam subhaanahu wa taala lu dul la mu ko tànnal du sàkkul kenn ci boroomam lu dul la ko tànnal loolu li ko waral mooy tànnug yàlla subhaanahu wa taala ku ñu ko leeraloon ba nga xam ko doo sàkku lu dul moom moo tax man alhaaji xaadimul xadim saa borom dimbalee ma bu may ñaanal sëriñ bi loolu rekk laa koy ñaanal te mooy xaada lahoo laahu maxtaara lahoo walaahu alam bismillahi rahmaani ñu ci nettali fukk bi ak ñaar am na kilifa ak séeréer ci sëriñ xaada lahoo laaw maxtaara lahoo mu laaj ko noo tudd mu ni ko daawuda sëriñ bi ni ko danga am doom ju tudd suleymaana su manee dox du la fekk jamono wa warisa suleymaanu daawuda alayhim wasalaam am na lu lu lu ma xamee ci biir nettali loolu mooy tur lu amoon bu yàgg la ci nitug yàlla subhaanahu wa taala innaanu bashiruka bi xulaamin ismuhu yaxya alayhi salaam ci misaal yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi ka ko doon tudde tur wii Muhammad xamutoon ni sunu boroom moo ko ko tudde woon bu yàgg lu mel nii feeñoon na ci yeneen nettali boo xoolee jataayi texe naar boobee sëriñ bi doon wax yaa aba ishaq ba tey lii ko sëriñ bi wax su manee dox doo la fekk jamono day leeral inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar lépp sotti na waaye am na ay weer ak ay àpp yu muy xaar mu door a xew wallahu alam am na ku mas wax Sëriñ Tuuba xaada lawo law maxtaar lawo ni ko soxnaam daa am doom fekk sëriñ bi yor ab kaamil di jàng mu ni ko lu mu am mu ni ko jigéen sëriñ bi ni ko nañu ko tudde yeesi siiw na ci nettali bi laa xam ni sëriñ bi daana tudde yeesi xëy na da koo fekk mu toll ci saar woow wala alam waaye wépp tur woo xam ni mas na koo tudde ci làmmiñam du yem ak tur mu tuddul ba faaw loolu itam sëriñ Saalihu doomam radiallahu taala anhu moo ko wax walaaw alam sëriñ Tuubaa xaadala walaaw maxtaar la mas naa wax ndax xaali moori bàyyi na fi góor ñu ni ko déedéet fekkan bàyyi na fi doom ju góor ñu ko koy nëbb sëriñ bi ni barkeb xaali moori dem na ca jigéen ña siiw na seetal loolu rek defe nga ni sëriñ Tuubaa xaadala walaaw maxtaar la mi yàlla may ruuyi ku koy nëbb dara mën naa am waaye doomu aadama moo dul mat faaw te it sëriñ bi ni ñu ko xamee léegi wuute na lool lool lool ak bu njëkk ba tey danañu jànge ci lii sëriñ bi wax ni barke bu ko sunu boroom joxee nit dootu ko nangu di ko yóbbu waaye da koy tuxal maa ngi tuub waaye yaakaar naa nit buy bëgg faatu te yor barke te am ci ak njabootam ku ko yor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 déggal sëriñ Tuuba li mu wax fa ñu yaroo waxul fa ñu mokkale loolu dañuy xamal ni ab yar mooy lépp kon ñun ñi jàngale war nañuy jéem amub yar ndax loolu képp mooy njariñul mokkal alxuraan wala alam am na naar bu tuddoon muxtaar wul bulul ab jàngalekatub xam-xam la woon bu mag ca gànnaar baayam da koo féetale woon ak sëriñ Tuuba xaadalawoo la maxtaar lawoo neena mas nañu toog sëriñ bi mu wax ni nañu ko may may mooy nan ko yaatal muy bëgg a jóg sëriñ bi ni ko toogal mu toog sëriñ bi ni ko sunu borom subhanahu wa taala neena materal la tànnal mu ni ko duma tànn tànnal ma sëriñ bi ni ixtartu lil muxtaari maxtaarahu hol muxtaaru lil muxtaari tànnal naa muxtaar la yàlla tànn la yonante bi alayhi salaatu wasalaam daal di andi soow mu sedd jox ko siiw na naar boobu nee na sëriñ tubaa xaadalawoo maxtaar lawoo bu daan wax xarab du ci am benn coona day wax waxin wu gaaw te yomb ko ci biir loolu dañañu leeral ni sëriñ tuubaa xaada law maxtaar lawoo lu mu def sunu borom subhaanahu wa taala moo ko ko def loo lu mu waxit moo ko ko wax loo ba tey naar bi li mu def am njàng la ci ñun morit yi yépp ndax bàyyi ak tànn mooy li gën ci am murid te sax daa bokk ci liy matal murit gi wa mahawoo salabu lixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari loolu sëriñ bi wax ni ixtartu lil muxtaari ba wax ja jeex xam nga guddi gi ñaanu yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam wa soow la ko sunu borom subhanahu wa taala tànnal ci naan yi walaw alam sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo daana jubbantil naari seeni xarab bi mu nekkee gànnaar li ko waral da koo jàng xam ko xamin wu wér ba noppi sax ci bis bu set ji ci di ci liggéeyal yonente bi sallallahu taala ali bi wa wa ba mujj sunu boroom may ko ci lu mu moyul kenn ci saaxir ak baatin ñun ñii di ko liggéeyal war nañoo jéem a xam wala fii bu wér ndax ci moom lañu topp wala alam soxna xëri penda radiallahu taala anha kañu ko bàyyile mas naa gane sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaralawoo mu koy ganale ni ko gan gi fonk naa ko lool ndax yonante bi sallallahu taala ali bi alihi wasabi wa sallama daa goro tàngalal ko kafe ci loxo boppam siiw na kon sëriñ bi yonante bi sallallahu taala ali bi alihi wasabi wa sallama la daan roy ci lépp loo gis mu wax ko wala mu def ko ci moom la jóge moo xam gis nga ko ci téere yi wala déet ndax jamono bu nekk day taxoog yonante bi sallallahu taala alayhi bi ali wa sabi wa sallama wala alam nettalib soxna fatija ci biñuy ñuy sanc radde radiyallahu taala hanhu. ci atum wasasin muy atum junni ak ñetti téeméer ak juróom ben 1306 dafa jóge daru salam dik bi muy dik ànd naa ku ñuy wax serigne moor hafsalo serigne buubu ja sëriñ golbe serigne ibrahima jey wala ja serigne omar sose serigne masamba kandi busa sëriñ Ibrahima Bousso sëriñ Mayasine Oumy Niang sëriñ Mbacke Ramata sëriñ Abdourahmane Lo ñii la àndal léemu ci Touba. feefee jumaa ji nekk guddi keroog la fa njëkk a fanaan booba nag am na guy gu nekkoon fii kër sëriñ Fallu nekk mu léemu ko fii bërëbu sëriñ bi nekk tey ak mbépp moo fi nekkoon mbépp garab la gu tudd noonu fi la sëriñ Touba xaadaloo la fanaan mook sëriñ Mor Hafsaloo ak sëriñ Abdourahman Lo radiallahu taala anuma ña ca des mu yebal leen fa guy googee nga xam ni gaynde ñi dañu leen di wër ba asamaan set bi ñu xëyee sëriñ bi wax sëriñ Abdourahman Lo wutal ma sawara wu tànga sama satala gi ba mu nugg nugg mooy xaw a tàng mu jug wuti saw sëriñ bi fettasi ko mu jëm penku mu dox tuuti yem ci ay pël pël xeetu nit lañ yuy ratt meew mu ñaan leen sawara ñu may ko ba mu dellusee ba ñu julli fajar ba sëlmal ne tuut pël yooyee jaar fa may leen soow ma ñu doon rat sëriñ Tuubaa xaadalaw laa maxtaaloo ni leen man ngeen koo jëfandikoo ba ñu noppee sëriñ bi reye ni leen li ngeen jëfandikoo ci pël yi am ngeen ci kumpa kumpa mooy mbir mu leerut man am ngeen ci ak lëndam am ngeen ci lu leerut pël yi kat ay jàngal lañu jàngal mooy koo xam ni dangaa reer ba regg sox sa fetal ba mu bax di wër ci guddigi ko dajal ray ko jël alalam pal yoy xéet wo lan won moy addu kalpe xayna fimne dañu ray won nit jël seeni alal nak yoyé dañu ko jël ci ay nit waye luñuy jël jël alali jambur fanaan gi ñu fanaan fi ci ñun ba bañuy faatok seen nak yi ba bañuy raaf muy raaf jeex tak lu laal ci ñom haram na sawara ndax guddigi ñu bokk fanaan ak ñun fii ahlu lu da daleen a wër ba asamaan set ba yoor yoor jotee nag nga xam ni ña fanaanoon ca guy ga dikk nañu sëriñ bi ni nee dama leen a bëgg a xamal ñeenti buum yi jëm ci sunu borom subhanahu wa toog leen ab diir te ànd akuk dal buum yooyee mooy xam yàlla ak ragal yàlla ak jaamu yàlla ak àgg ci yàlla xam yàlla moo di xam li muy digle ak li muy tere ragal yàlla moo di ragal def lu muy tere te sax ci li muy digle jaamu yàlla sax ci li muy digle ba fàtte li muy tere mooy laa taqaf na jawta àgg ci yàlla mooy sax ci li muy digle bàyyi li muy tere ba sey cër fàtte ko foofu mooy waatul buyoota min abwaabiha ku ci yegg dugal nañu la ci néeg bi nga xam ni ku ci duggati doo jaari ci bunt bu la dof yi ak teraanga ji ak mucc gi ci lépp luy lore da wut la ñu ni leen waatul bu yoo tamit ab waa bihaa néeg bi daa am bunt jaar leen ci buntu ba weer na soxna si radiallahu taala anu nee na lii la leen njëkk digal ci Tuubaa sanc bi nag am na juróom benn weer yoo xam ni weer wu nekk ñu mbaar menn ba muy juróom benn mbaar ci biir juróom benn weer yooyu Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaloo dani bu ñu fi wal wal mooy dugg dëbb dugub bu ñu fi dëbbee kuur lu ñu fi jëfandikoo nañu koy dëbbe Daaru Salaam dama fee def liimaay guy bañ dëbb fee juróom benn weer liimaay mooy muslaay dafay def muslaay goo xam daal bëggut dëbb man daanaka li may déggee léeg-léeg damay doyog waar ba duma ko mën a bind waaye war nañoo xam ni Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la Tuubaa ñor na ko lool ñaareel ba ndigali yàlla yi ak tere yeem yi ñor na ko lool nettali baa ngi murit bu nekk mën na cee xamee lu kenn mënta takk ci ay xam-xam saahir ak baatin waaye ci kaw settantal ndax ina fi dalika la ayatin lil mutawassimin walaw alam nettali soxna Fatija radiallahu taala anhu ci gëstu bi ñu def daarul mannaan daa am guddi goo xam ni dañoo reer ba noppi Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaar laxoo génn woote ba ñu dajee mu ni am na gan yu fi ñëw suba waaye ku ñu fekk nga tëdd bu la jaral jug ku ñu fekk nga taxaw bu mu la jaral dem fenn dañu dikk ba dem bantub xat sax du damu daa di joxe xasire gu ñuy wax yallaahu inni ilaykal yawma yallaahu ab xil wasilata bil muxtaari yallaahu maa ngi sàkko ku ko am mu dimbali ma ci wax ni nañu ko jàng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 bañu ñuy julliwaat fajar lañu door a jeex wér na cey sëriñ Tuubaa xaada maxtaar lëxoo loolu am na kilifa gu wax ni moom la sëriñ bi di junj ci way wi ngir sant yàlla subhaanahu wa taala badadali chamla aduwin raasimi rabbi bi jaahil mustafa ni haashimi soxna Faati Ja radiallahu taala anhu nee na bi sëriñ Tuubaa xaada lëxoo law maxtaar lëxoo nekkee jolof mas naa yónnee ñaari fas wax ni benn bi naa ci war bi ci des soxna faati kan mi ñu fekk ko jolof soxna si nee na am na ku nekkoon jolof ku ñuy wax jaraaf gaynaago bi nga xamee ni boroom ndar woon sëriñ bi te moom pël la woon bu bari alal ba xamul kenn ab yoor yoor mu dikk wax ni daa bëgg a gis sëriñ bi ñu wan ko sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaaraloo ni ko lu doonoon say tànk mu ni ko mooy xamal la ko kii lawoo woo ak càgganteem ak dooleem ndax dama dégg ni da laa woo te wuyu woo ma defe ni daa am lu la ump ci moom sëriñ bi ni ko jaraaf sama diganti ñoo ñii dama yaakaar ni am na laneen loo mën a lijjanti lu du loolu sama ak ñooñu ngay lijjanti walub gimiñ la dana mok, dana tiis du tànqal kenn te du am tuuru xëy na du tuuru la bëgg a wax jaraaf koom mii la yàlla booleel ba nga yenn ñëpp yàlla teqale leen tey jii ku am ab sarax bëggu koo saraxe dana ko denc diir bu gàtt nga soxla ko jaraaf xaqataay daal di dem bi nga xamee ne Sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo dem na ci cukki bi ba ñëw njaareem jaraaf jóge jolof Sëriñ Tuubaa law maxtaar lawo xamal gi ko boroomam xamal mujj mbir yi mu tax na mu mën a muñ loo xam ni moom képp moo ko mën a muñ sunu boroom mi subhaanahu wa may na ko ci jikko ju rafet loo xam ni kenn amu ko kudul yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam wa sallama ba tey dañoo xame ni kàddu lu rëy la mën naa teral nit bu gaaw mën na koo toroxal bu gaaw yal nañu yàlla dimbalee li ñuy wax lépp di liggéeyab Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaara lawoo faw ba tey loolu nga gis mu ko doon def loo Sëriñ Abdourahman Lo radiallahu taala anhu da nga ci xame ni sëriñ bi mbir mu nekk am na ñumu ci daan taamu loolu nag baax na lool ci kilifa gu ñuy topp ndax dana weral benn juyoo wala coow du am ci say nit bu ñëpp maasee xam ni sëriñ diw mooy def nangam kenn du xëccoog moom loola sayduna jibril alayhi salaam moo yor waxyu gi sayduna mikaayil alayhi ndox mi sayduna israfil alayhi salaam mooy wal boftu bi sayduna asrail alayhi salaam mooy rocc ruuyi muy wéy walaaw alam ñu ñëw ñaar fukk bi ak ñeent soxna Faati Ja radiallahu taala anha nee na sëriñ Tuubaa xaade lawo law maxtaar lawo nee na ko gabon lama fa nekk lépp tubaab yi ñoo ma daan rootal ba na fi sëriñ Moodu mu dagana ñëwe nee na ko litax tax ñu fa foofee mooy daa am daa am kuttu yu fa nekk kuttu mooy yuñ màtte yoo xam ne ku ñu màtt lu mel ni siburu moo lay def yoxoos ba kero ngay faatu te it xolandoom ya fa nekk dañuy jëfandikoo doomu aadama loolu moo taxoon ñu yóbbu ko fa Sëriñ Tuubaa xaada lëxoo laahu maxtaar lëxoo nee na ko tubaab yi jigéen ñi bu ñu masaan a xëy dañu may wër sàppe ngir xaalis ak wurus yu ma daan yët ma leen koy sànni loolu moo tax ba ma fay jóge ñoom ñëpp dañu doon jooy mel ni seen mbokk daa faatu Sëriñ Tuubaa xaada lëxoo laahu maxtaar lëxoo nee na ko diirub la ma fa nekk kenn laa fa mas a mooy daba sëy soxna si yelli sëy yaayam tudd xawaa u yelli sëy daa jébbalu woon ci sëriñ bi moo doon xuloog tubaab ya bis ba ñu dindee la sëriñ bi defoon muy nuru jàkka wér na sëriñ tuubaa xaada la wallaahu nee na ko ba ñu ma foofee tooñ gu fés sunu borom subhaanahu wa leen foofee lu tax ñu tàggook seeni firgën xëy na mooy fit am na ci ñu faatu am na ñoo xam ni ba ñu yeggee la yàkkamtee gis luy ndox ak saabu ginnaaw loolu lañu daje am ku ñu jiital mel ni ku bëgg a jubóog man ba ñu waxee ba noppi ma ni leen ñooñu ngeen gis ba ñu yóbbu seeni firgeen ndigal lañuy diglu te kenn digalu leen ñu jëm si ci yéen munu ko kon baye boo ngeen ànd akuk dal te xam ni kenn du def dara ndax yéen bakkan képp ngeen di jëfandikoo lu mu leen digal ngeen def ko ñooñu ngeen gis ba ñu yóbbu seeni firgan nag am nañu kilifa te duñu bët ndigal de feeg leen ñu jëm si ci yéen duñu jëm si ci yéen te kenn digalu leen ko lii moo tax ñu dem ànd ak jàmm su ko defee dama xamul soxna si radiallahu taala anhu day junj feeñu kaxlu badin radiallahu taala anhum wala déet waaye tuddul ci biir nettali bi ahlu badrin teewul itam ñuy nettali ci nettali yu wér feeñuk ahlu badrin ci Libreville capitalu Gabon yasaralil muna lada libar wali man qaadali ma gaaba han kulli wali li qaada ahlu badrin asuda man zahsahal waashiya wal hasuda ila nasrina qad saarahu ma quyulihim wa xaafa al ida minhum wa maalo ila salam waaw kay bayit wii ma mujj a wax wa maaloo ila salaam mooy gëna leeral ni ahlu badrin la radiallahu taala ndax soxna si radiallahu taala wax na ci biir nettali bi ñu ñëw bëgg a moom te loolu mooy maanaam wa maaloo ila salaam walaaw alam am na bi sëriñ tubaa xaadalaw law maxtaaloo di génn lu bañ waar kana lig wax ni da ciy def ay téere ba ñu tàmbulee génne mu tàmbulee taw sëriñ bi ni fataat leen dañoo defani dama bëggum ndox siiw na alamani manil bariyata fatar wali yaquudu maa bi baaliya xatar muy lu tokk samam xel rek sunu boroom defal ma ko mel na ni malaaka alayhimu sunu borom subhanahu wa taala leen a jox ndigal ci ñuy defal sëriñ bi xaada lahoo law maxtaara lahoo lépp lu mu bëgg loolu mooy waral lépp lu muy jëm ñuy jéem a dàkk ak bëggam di ko def walaw alam jumaa yi njaareem ci fukki fani tam xarit lay yegg sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaar loxo tëjlu ko ba ca kori wax mu wax ni nañu bay pénc mi ba ñu ko defee mu door fa julli ñaari rakkaay kori xutba génn ca biti siiw na bi ñuy liggéey jumaa yi njaareem nag bari woon na ñuy wax ni sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaar loxo diglewu ko taalibe yi ñoo ci dàkk ak bëggam ba am na ñu ci daawul nangoo def seen alal moo tax kori googu sëriñ bi wax na foofee ba mu génnee liggéey bi ma doon liggéeylu laa leen bëgg a xamal ni am na ñu ni maa ko santaane am ñu wax ni santaane wu ko ma bëgg leen cee xamal lu leer tey jullikaay bi ma fa doon ba ma defoon ca Gabon te nasraan yi buddi woon ko sànni foofa la ma sama borom sante woon tabax bii nee na ma séeréer liggéey booba mooy tabax bi tey ku ci amoon ndigal te liggéey ci dugal nañu ci xorom boo xam ni kenn du la ca fekk ku ci amoon ndigal te liggéeyoo ci ñàkk nga loo xam ni ba ba ngay tàbbi suuf dootoo ko am danaa leen xamal lu gàtt ci liggéey bi du jàkka da jumaa ëpp na jàkka ëpp na jumaa su doon amu tur ma ni najaatun li ahlil ardi mooy wuccu muccuwaayub ñooñ suuf wa misbaahun li ahli samaay te lampum ñooñ asamaan lay tudd ba ba ñuy taxañ asamaan seeg suuf si siiw na Sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaar la balaa jëm ci dara da ciy am ndigal ba noppi door caa jëm lu muy digle itam def ko moo gën ci ab taalube def ndigal yépp waaye doomu aadama daa bindoo manqué moo tax waxtu wu nekk ngay gis ñuy góor góorgóorlu ci ay ndigalam ak ñu ci góor góorlu waaye li gën ci ab taalibe bu déggee ñu ni sëriñ bi nee na nangam mu gaaw jëm ca ndax seytaane daa gaaw lool ci yàq am xel te fi ne loolu yi ñuy digle boo ko defee doonte sëriñ bi li diglewu ko du tee ñu fay la bu fekkee moo ko digle fay ga gën a bari yal nañu yàlla dimbulee ci topp ndigali sëriñ bi walaaw alam